wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyi al-azim mbokk yu tedd yi ñu ngi àndaat ak ci seen xalqa jotaayu fiqh di ci ànd ak ci ICFA TV ci ndimbalu Islamic Cultural Foundation of America tey bi idnillahi tabaraka wa taala ñu ngi ñëw ak yéen ci nawaqidul wudu inda saada almalikiya rahmatullahi yi firi njàpp maanaa yi koy yàq ci ngiru imam malik xam ngeen ne boroom xam yi am na yuñ dëppoo ci yàq njàpp am na it yuñ ca dëppoowul bu ñu leen mëmbëstalee li ngiru Malik mii suñu ngir jàngale incha allahu danañ leen ci tegal yenn wuute yi nga xam ne madahib yi am nañ ko ci ngiru Malik njàpp ci ñett lay yàqoo benn muy jëmmi toj lu mel ni sanguwaay akramakumullah ak ya ca niru wala yoo xam ne du jëmmi toj waaye sabab la cause la yuy indi toj lu mel ni nelaw ak ya ca topp ak loo xam ne du toj du sabab lu mel ni riddatu nasalullah salaama <clears throat> jëmmi toj yi muy dana séddaliku ci juróom ba ca njëkk <clears throat> wala juróom yooyu mën ngaa wax ne mooy yii génnee mooy loo xam ne génn na ci benn ci ñaari génnuwaay ñaari génnuwaay bu kanam bu gannaaw lu ca génnee ci juróom yii njàpp la dafay yàqu bu njëkk ba mooy sanguwaay akramakumullah ñaareel ba mooy ngalawal ñetteel ba mooy dem joor ñeenteel ba mooy wadriw juróomeel ba mooy madhiw Bachar nee na bawlun wa riixun gaaitun maa alwadhi waxsil jamii alfarji naawin lilmadhi sanguwaay mook dem joor te mooy dem gannaaw kër ak wadiyu bu ñu génnee ci doomu ci benn ci ñaari génnuwaay non seulement njàpp la dafay yàqu waaye dees leena war a setal mënees na leena setalee ndox comme mënees na leena setalee doj ak yi mel ni doj ci jumtuwaay yi ñuy seetale bu dee ngalawal ajuwut setal ndax air la rekk du sobe bu dee maviyu nag am na atte bu spécial moo di ba ñu laajee yonentu sallallahu alayhi wa ki maviyu génn ci moom mu wax ka ko laaj mu dem ca ka ko yóbbante ne ko dafay raxas zakaram maanaa awraay góoram c'est-à-dire madyu fokk borom raxas ko waaye fokk borom raxas sakara si yépp awra wi yépp la ca taq madyu ak la ca taqut ndax xadiisu yonent ji dafa wax ne na raxas zakaram bi ci toppit mooy daf koy booleeg yéene lu tax ñu ne daf koy booleeg yéene ñu ne bépp raxas goo xam ne du raxasug jaamu waaye dañoo war a dindi sobe ga rek duñ ca boole yéene waaye Mathieu nag gannaaw dañoo wax borom ne ko na raxas ba raxas lu sobe laalu ca sàkkaram ñu ne raxas go kon raxas taabudi la fa kullu xaslin taabudi yushtaratu aw yajibu fihi niya bépp raxas boo xam ne raxasu jaamu la borom daf caa war a yéene moo tax njàpp ñu ca yéene looloo tax kon Mathieu raxas ko aju yéene ibnu ashir nag tudd na ci yàq njàpp sala suweef moom fukk ak juróom benn la ko def kon tudd nañ yi nga xam ne ñooy jëmmi toj muy sanguwaay muy ngalawal muy dem joor muy waddiw waddiw ndox la mu weex muy génn ñaareel gannaaw bu nit ki sawee ba pare lay génn mook madhiyu ñoo niroo couleur waaye madhiyu bànneex koy génnee bu dee sabab yi <clears throat> euh, góor ga Bachar nee na asbaabuhu zawa zawalu aqlin imma bil jinni aw bis sukri aw bil igma sabab yi nga xam ne ñoom ñu yàq njàpp waaye dañuy yóbbu nit ci njàpp lu yàqu moo tax ñu considérer leen comme yàqkatu njàpp yooyu yan bu njëkk ba mooy zawalu al aql xel mu dëñ moo xam mu dëñee ci benn ci ñett yi mu dëñ benn borom dafa jàpp ba pare ndof jot ko bu wéree jàpp la yàqu na day jàppaat aw bi sukri wala borom dafa jàpp ba pare naan sàngara mandi bu mandi ma dëñee dafay jàppaat wala borom jàpp ba pare walla nit ki jàpp ba pare xëm ñett yi yëpp xel ma daf cay deme bu ximmilikoo bu wéree ca ndof ga bu dindee bu dëñee ca màndi ga njàppam toj na ca biir ñett yooyu moo tax dafay jàppaat ñaareelu sabab ci sabab yi toj njàpp mooy nelaw yu diis Bashar ne nawmun tawilun aw qasirun in thaqul laa xafa maa qasrin wa nadban in yatul nelaw yu diis moo xam gudd na moo xam gàtt na njàppul li dafay yàqu nelaw yu diis nag danañ ko xamee ci lan ci ñàkkuk yëkk nit ki bu perdre yëgam ci biir nelaw lu mu gàtt-gàtt nelaw yu diis la gudd na wala gàtt na njàpp li yàqu na nan lañuy xamee yëg gu ñu perdre yëg gu ñu perdre ñu ne bu fekkee ne am na ñuy waxtaan ci wetam te déggut leen dañ cay xamee ne nelaw ya diis na ñàkk nag yëg wala li boroom xam-xam yi daan wax ci téere yi ida saqatat subhatuhu aw inxallat xabwatuhu su kurusam waddee te yëgu ko walla ferankulaayam fecceku xabwaam su kurusam wadde nelaw yo diis na su ferankulaayam feccekoo nelaw yo diis na xabwa bi nag danañ ko daan jàngalee ñaar benn koo xam ne dafa ferenkulaayu ba pare jël ñaari loxoom dégg nga teg fa ba nga xam ne tànk yi du dëñ su loxo ya dëñeeg tànk yi mooy ferenkulaay ba yàqu nelaw ya diis na walla bu njëkk ñu daan nekk ci jàkk yi di fa yàgg dañ daan wéeru ci jënu jàkk yi muy pilier yi su fekkee nag danga fekk ne amuloo foo wéeru da daan gis Eh, eh, da ngay jël sa kaala daal di ko jaarale ci sa suufu woom takk ko ci sa ginnaaw daf lay servir équilibre su fekkee nag takk-takk boobu ak jotaay boobu fecceeku na ñu nekkoon nelaw yu diis na waaw borom eh, téere yi dina ñuy misaale nelaw yu diis loolu bu dee nelaw yu gàtt nag bu fekkee nelaw yu gàtt la te euh, woyof du yàq njàpp su guddee te woyof du yàq njàpp waaye sopp nañ borom jàppaat ñetteel ci sabab yi waral njàpp lu yàqu yi yàq njàpp mooy lamsu man tahwa bi tabin mu'tabar laal koo xam ne dees na amee bànneex cig laalam aadatan moo xam góor la laal jigéen wala jigéen laal góor aw lamsu man tahwa bi tabin mu'tabar bi ladhatin mu'tadatin walaw dhakar loolu nag ci malik yetu la buñ déggee ci yeneen ngir yi danañ ci am yeneen yuñ wax yu mel ni shafiiyatoog ñu ànd ak ñoom ne lamsu boobu aw laamasumu nisaa yàlla euh, sëy la ci jublu ala kullin nañu yem ci ngir mi ba pare ci ibnu ashi dana tudd sax xublatu donte yeneen ngiri duñ ko ca boole xublatu mooy mooy foon jabar wala jabar foon jëkkër <coughs> ñeent ñeenteelu sabab ci sabab yi yàq njàpp mooy laal awra góoru góor góor bu laalee awraay góoram te mu laale ko biit tënkam wala mu laale ko ay baaraamam ñu ne njàpp li dafay yàqu waa kër Abu Xanifa te danañ ca wute waaye danañ ci ñëw ñu ne dafay yàqu ña nga sukkandiku ci man massa zakarahu falyatawadda bu dee jigéen la nag wuutee nañ ci dana yàq njàppam du ko yàq ci madhab bi wa massu ixlilin bi batnil kaffi aw isbain wa mraatun bil xulfi maanaam bu fekkee jigéen moo laal awraay jigéenam ndax njàppam dana yàqu wala du yàqu kooku wuutee la biir madhabu imam malik liñ dëppoo mooy góor gu laal awraay góoram laale ko tenqam walla baaraamam ñetteel ba ci yi yàq eh, njàpp mooy loo xam ne du sabab du toj waxoon nañ leen toj ak sabab ak loo xam ne du sabab du toj toj ñu wax leen benn ci juróom yi génn di génnee ci benn ci ñaari génnuwaay muy <clears throat> sanguwaay ngalawal dem joor wadyu ak madyu sabab yi ñu wax leen benn ci yi xel mu dëñ moo xam ndofa ko dindi wala mandi wala xëm nelaw yu diis moo xam gudd na wala gàtt na laal koo xam ne dees na amee bànneex ci laalam aadatan aji laal ji am ci bànneex wala mu jublu ko ca donte amu ko ca laal awraay góoru góor yi nga xam ne nag du sababu <clears throat> du sabab du toj ñaar la bu njëkk ba mooy riddatu yàlla na ci yàlla boole musal waa ji dafa jàpp pour julli tisbaar ci diggante bi mu murtat génn ci lislaam ndax su euh, waaye <clears throat> gannaaw ga euh, maanaam ba mu murtadee génn ci lislaam wala iyaadu billah mu tuubaat duggaat ci lislaam ndax mën naa jàpp ci njàpp lool mën naa julli ci njàpp lool ñu ne déedéet sama borom nee na walaqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin te alwuduu min jinsi min jumlati alamali boo bokkaalee sa jëf yëpp yàq kii kon ba mu génnee ci diine jëfam yëpp yàqu na te njàpp ci jëf la bokk bu dugaatee ci lislaam dafay jàppaat du ca mën a julli <clears throat> maanaam du mën a julli ca njàpp loolu ñaareel ba ci yi nga xam ne du sabab du xadath mooy ashakku sikk sikk nag ci madhab mi ñetti eh, ñetti anam la maanaam sikk sax ci boppam ñetti anam la ci wàllu njàpp mooy kii sikk ndax moom jàpp na walla jàpp julli dafa jot ngay sikk sàkk ndax yow jàpp nga wala jàppoo kooku ijmaan dangaa war a jàpp wala ngay sikk ci ñaari bu ci jiitu yow leer na la ne jàpp nga leer na la ne toj nga waaye xamoo toj gi ak njàpp li lu ci jiitu kookit ijmaan dangaa war a jàpp amoo njàpp ñetteelu sikk bi nag mooy achakku fil xadas jàpp nga ba pare di sikk sàkk ndax le nga wala le woo kooku ci ngir imam malik sa njàpp dafay yàqu xilaafan lil jumhur waaye ci jumhur li ëpp ci borom xam-xam yi sa njàpp du yàqu te loolu daañ ci ñëw lii daal ci tënk mooy nawaqidul wudui inda sada almalikiya wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba subaak jàmm inchaa allah tabaraka wa taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh